loolu. et qui était à may may may mun a loolu engagé wul Ousmane Sonko. comment te mën naa la expliquer ce qui s'est passé. avec cette signature dafa am lu ci xew ñoom bi ñuy dugg di seeti Union européenne dañoo waroon a def benn mémorandum déposer ko Union européenne 15 heures ñoom bu ñu dugg xam nga Union européenne bu ñuy dugg dañoo nangu seen téléphone ak 14 heures 55. lañu ñu envoyé message ci groupe bi wax yi lettre boobu fekk na jël nañ déjà téléphone ñu waroon a dugg ci biir Union européenne sare ci la bokk je car Sarré laa mën a wax parce que moom laa bokkal parti te xam naa ne sare ku dëggu la lu mu wax rek loolu mooy li nekk ñu jël seeni téléphone ñu dugg ci biir ñu dugg ci biir bi ñu leen joxee assigné Sarré a commis une erreur c'est de n'avoir pas lu li ko jox. <laughs> waaw déglu rek ma eggale may mun a lu rek ma eggale. en politique c'est une erreur à ne pas li ñu leen jox ñoom pour ñoom mémorandum bi ñuy déposé pour Union européenne lañ leen jox ñu signé ndekete ab lettre lañ leen jox ñu signé d'ailleurs boo seetloo Moustapha Sarré le lendemain mais il avait démenti que moom musul signé. effectivement dans sa tête musul signer ap lettre pour moom ab mémorandum la signé donc c'est vous dire que loolu c'est une erreur Moustapha Sarré c'est c'est c'est quelqu'un qui est très grand. non mais c'est il a reconnu. c'est pas une erreur c'est une, une catastrophe. non c'est pas une erreur c'est une catastrophe bu la ko noonu. mais comment mais... sa signature dans une correspondance sans lire la correspondance. ci contexte politique bi ñu nekk nii. Moustapha pour moom mémorandum lay signé mm. ndekete lettre bu ñuy envoyé Macky Sall lay signé mais loolu yëpp c'est pas important. Oui, parce mais... que moom génnaat na wax li mu wax. oui mais oui mais wax na li mu wax Ousmane euh, Sonko génne na wax nañ ci liñ ciy wax. loolu pour man. y a deux choses jaratul sax euh, débat. soit ngeen ci dugg ngeen dem ba ci biir. ngeen rétro rétro soit Moustapha Sarré s'est trompé de bonne foi soit da ngeen ci dugg ngeen dem ba ci biir xam na c'est pas une bonne initiative politique ngeen rétropédaler mais li ngeen di wax nii Moustapha trompé de bonne foi ah Pastef Pastef parti ngëm-ngëm la du parti buy rétropédaler on regrette rarement nos actes parce que lu ñuy def rek acte bu ñuy posé rek c'est parce que c'est un acte réfléchi Moustapha Sarré s'est trompé de bonne foi signé sans pour autant xam li mu signé pour moom ab mémorandum lay signé ndekete ab lettre buy dem Union européenne buy dem ci Macky Sall lay signé mais ça ne nous engage pas. mais Sarré parce dañoo pare ci moom. mais Sarré a signé ça a un tollé. Mm -hmm. Sarré a dit qu'il n'a jamais signé qu'il n'est qu'il n'a jamais qu'il n'est pas signataire de cette lettre là. on lui a sorti la preuve. Mm -hmm. Ousmane Sonko a sorti un communiqué pour dire que nañu génne turam. ci mbiru audience yooyu ak ci mbiru lettre yooyu. effectivement parce que xam na ne ça reste trompé de bonne foi dafa désavoué son envoyé. non non du tout du tout du tout xamoo Ousmane Sonko xamoo l'élégance de Ousmane Sonko du désavoué jamais ku nekk ak moom parce que Ousmane Sonko xam na ne Sarré li muy def c'est pour le parti c'est pour le bien du parti Moustapha Sarré c'est un grand homme il a reconnu son erreur il a dit hein il dit qu'il s'est trompé il croyait qu'il avait qu'il devait signer un mémorandum ben ndekete c'était une lettre buy jëm ci Macky sa looloo waral. dañ leen piégé et il n'est pas le seul. dañ leen piégé dañ leen a piégé kay il n'est pas le seul. dañ leen a piégé. ah bien sûr parce que loolu. lan la niru kan moo leen envoyé envoyé un message. à 14h55 nit ñi war a dugg biir Union européenne à 15h loolu lan lay niru lan la mais il s'est trompé de bonne foi. kan moo leen piégé Aminata Touré. je ne sais pas. je parce que c'est Aminata Touré. qui a qui, qui a rédigé la lettre. je ne sais pas en tout d'après Bougane d'après Abdou Mbacké Bara Dolly et d'après fa certains recoupements que j'ai te ki ki nekk sunu représentant moo rédigé bi. nekkuma fa woon te ki fa nekk sunu représentant mu Moustapha Sarré qui nous rend compte waxuñu loolu. lu mu leen wax waxuñu non moom wax nañu lim ñu wax. wax naa la ko léegi je vais me répéter encore. ah ok il s'est trompé de bonne foi. mais waxuñu ne kii moo bind lettre bi kii moo ko def loolu yëpp egguñu ci parce que man nekkuma fa woon. alors te bugguma di avancer wu. Moustapha Sarré peut s'être trompé de de de bonne foi. loolu moo euh, sax il peut avoir été piégé. Mhm. mais pourquoi il est revenu pourquoi il a pris à la réunion d'hier euh, euh, qui devait préparer l'audience d'aujourd'hui, réunion qui est intervenue euh, après la réponse de, du directeur de, de Macky Sall, du directeur de cabinet de Macky Sall. Tu es sûr que ma, euh, Sarah si, Sarah mu fa woon. Tu es sûr? mu fa woon et il a même di bu leen neexee ngeen dem waaye boo leen demee dama lu leen Pastef. bon kay leer na. joxe nga sa réponse mais mais mais il y. nga sa bopp. <laughs> bu waxee loolu rek répondre nga sa bopp. non. li wax répondre nga sa bopp. non non non pour saa nee na bu ñu fa demee demuluñ passif waxaluñ passif parce que passif lépp luy jëm ci Macky Sall ay lettres rek yooyu du ñun ça c'est pas passif. waaw mais pourquoi mu dem bu ñu doon négocier ak Macky Sall négocier lu ñu moom. mais pourquoi mu dem. mais parce que moom moo doon représenté par Ous candidat Ousmane Sonko ci collectif boobu ñun lépp luy dynamique unitaire généralement passif yi passif. dynamique unitaire lépp luy dynamique unitaire bu ko euh, ay